mbokk mooy li bokk muy tariqa tijaniya parce que jar na di leeral ndax ñu bare xamatuñu tariqa tijaniya lan la ba dem na ba ñi nga xam ni dañuy wax ni tariqa bi la ci la ñuy basé wu pour di xool mag mu leen neex rek ñu yàq der ndax dañ leen jàngalul tariqa tijaniya lan la tariqa tijaniya li jiitu di base numéro un base numéro un ci tariqa tijaniya mooy lumière la waxuma des ni sant la dama ni base numéro un lumière la lumière bu jóge ci yàlla jaar ci loxo yonent bi tegu ci loxo Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani lumière boo xam ni mi ngi jóge ci yàlla jaar ci loxo yonent bi tegu ci loxo Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani mooy base numéro un wu tariqa bi léegi muy lumière boo xam ni waxuma nin ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani waxuma niñ ko ko askanalee waaye li ci nit ki di jëriñu ci biir tariqa bi ëpp na askanu Cheikh Tijaani digganteem ak yàlla lay defar kon tariqa tijaniya base la boo xam ni bu ci nit ki tooge mi ngi koy tarbiye ci digganteem ak boroomam di defar ruuxam ruux yi nga xam ni yëpp lenn lañu soxla muy lumière tariqa bi nekk li leen di defar di leen soññi ci seen ngëm yàlla di leen dolli di leen dolli ci seen ngëm yàlla baat bu am solo la parce que ki dugg ci tariqa tijaniya nekk na jullit ba noppi li des mooy mu fexe ba li tax mu nekk jullit mu di ca soññ ruuxam pour mu dimbali ko ci ba jullitam dëgër maanaam li ñuy wax jukko ju rafet lu jafe la jukko jullit lu lu jafe am la tariqa tijaniya da lay soññi pour fexe ba jukko jullit nekk ci yow nga am ko huwa allazi anzala sakinata fi xulubil muminin fi xulubil muminin li yazdaadu imanan maa imanihim walillahi junuudu samawati wal ardi wa kaana allahu aliman hakiman gis nga baat bi ci am solo mooy li yazdaadu imanan maa imanihim nekk nga jullit ba noppi il faut nga am lu rafetal sa nekk jullit renforcer sa foi renforcer sa foi lan moo mën a renforcer sa foi quiétude huwa allazi anzala sakinata fi xulubil muminin sakinata soog a ñëw mooy quiétude bi dalu xol yàlla nee na moom moo wàcce quiétude def ko ci xolu ki nga xam ni moom la ñuy tuddee le croyant huwa allazi anzala sakinata fi xulubil muminin waaye xam nga lu amoon kii ñu dàqental ni muminuna xàqan la dàqental ni am na xol xol bi lan moo ci nekk nag moom la yàlla ni li mu def ci xol bi ba tax tey mu mën a doon ni imaanam mooy sakinata quiétude quiétude loolu tax mag ñi buñ la daan jàngal buñ la bëggee détailler sa dund lan la dañ naan la kiy sàkk di yàlla mooy sàkk kiy wàcce mooy yàlla waaye base baa ngi nii nga ni baas bi nan lañu ni léegi jàppal ni jëmm nga guy góor góorgóorlu ci gëm yàlla am nga xol léegi nag lan mooy dundal sa xol nga ni kii tiit moo koy dundal ñu ni moo tax yàlla ni huwa alladi anzala sakinata fi qulubil muminin waaye jeexul li yazdaadu imaanan maa imaanihim parce que xol bu dalul ngëm yàlla mënu ci ne su yàlla jëlee xol bi dalal ko ba ngëm nekk ci mu fekk ci sa fois mu renforcer fois bi exemple bi mooy ki nga xam ni jullit la dem bi muy dem jëli wérd tariqa tijaniya wérd bi mooy renforcer foi wam loolu mooy njëriñu tariqa bi